li leen di motiver nag mooy ni ñuy gisee ñu koy toppatoowee ñi nga xam ni ñoo ñàkk seen bakkan ci xeex wala ñi nga xam ni ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu loo leen gën a teral gën leen a toppatoo soldat bi nekk en opération dina xam ni ah bu ma dara arrivé kat teraanga ji ma gis ñu defal ko ñii. xëy na ma am ci loolu dana tax mu yokk njàmbaar yokk sawarte mais bu gisee ne ñooñu dañ leen a sofantal wala dañ leen a négligé seen àq jotuñu ko moo xam ancien combattant la moo xam blessé en opération moo xam koo xam ne dafa ñàkk bakkanam ñu gis seeni famille di tumuranke loolu day wàññi motivation discours président de la république njàngat bi ma ci am mooy li ma koy digal rek wàññi wax ji ak slogan yu rafet yi te jublu ci jëf wante rek def naa lii rafet na def naa laa rafet na loolu amul solo puisque bu defee lu baax jëmale ko ci askan wi askan wi ñoom ñoo koy wax jërëjëf or bu ma ko dee déglu man damay defe ni ci beneen réew la nekk wala xamul li xew parce que ndóol gi metti na ñëpp gis nañu ko njàng mi sooxe na syndicat yi étudiants yi boo leen ko laajee ñu wax la ko paj mi sooxe na parce que même programme yi nga xam ni yéwén moo tax mu ne ñii dootuñu fay dara muy plan Sésame muy xale yi am moins de cinq ans waaw boo defee yéwén googu ba pare bàyyi opito yi ak bor boo xam ni bii dana gàllankoor seen fonctionnement ñooñu nga ne bu ngeen demee du ngeen fay li leen gën a amal importance mooy bu ñu demee ñu faj leen mais bu fekkente ne hôpitaux yi nekk nañu ci difficulté bu tax bu ñu demee kenn du leen faj loolu ay problème la